AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy audu billahi min alcheytaani fi kulli mawdihin wa fi lawtaani bismi lilahi wa huwa arrahmaanu wa huwa arrahimu qaada lil amaanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lumuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abada waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida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 benn xaaj mu ne leen féetee leen ma penku benn xaaj bi féetee ko sow bi ci des féete ko ndeyjoor xaaj bi ci des féetee ko càmmooñ mu toog ci digg ba daal ne yenn waa penku ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñu dembàkki xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu ne yenn waa sow ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñun de mbàkki xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu laaj ko waa ndeyjoor ñu wax loolu mu laaj waa càmmooñ ñu wax loolu mu ne yenn waa penku ngeen xamu leen lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk ñu ne ko déedéet mu laaj waa sow ñu wax loola mu laaj waa ndeyjoor ak waa càmmoñ ñu wax loola mu ne man ahmadu mii de xawma lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk waaye nit nga xam ne nag xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk naka noonu itam amul lenn lu mën a faj mbëggalum bàmmeel lu dul jaamu yàlla ne leen man de yàlla dénk na ma mbalaa num sutura moo xam ne ni ku nekk ci àdduna mën nga cee sàngo waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp te loolu de moom da koo giñ ndax bu waxoon te giñut it ñu gëm waaye dafa giñ ne giñ naa ci yàlla ne amatu lenn luy jariñ jaam bi ëllëg bu wàccee ci bàmmeelam lu dul ak njub sa yan yanfau shaxsu gadaa inda huluuli ramsihi gayrul hudaa daal di waxit ne àdduna ak àllaaxira dañoo wuute lool ndax àdduna koo bëgg gis mën nga ko gis waaye àllaaxira njaraan daan bokk lu ñuy def rek ñooy gisante démb nag andi woon nañ lenn ci bayiti sëriñ Mbay Jaxate tey ñu barkeelu ci bayiti sëriñ Musaa Ka yuy fàttalee ëllëg téeram ba tuddee naa jéem a buurati fàttali dee ak fàttali ëllëg rek moo ko tax a jóg lam ca wax ci yonante ya ak borom cër yu njëkk ya ak buur ya fañ jaaroon ak fa àdduna mujj ak ñoom téere bu rey la waaye dañ ci barkeelu rek ñu tàmbalee ko ca lam wax ne yónneen ya ak ñañu leen daa yónni ñëpp mes loo ruq-ruq barab day ñëw fa bis di la wër ndegam ne daa dox ci kaw ndox mee ka dem asamaaw di xëy di dox looy garab ndeem ñoom la suuf mujj war ndegam ne daa yokki dik kuy bëgg a faatu ñu faj ñoo xëy ne mes lu ñu fi def waaru jot na bu wér ndegam ne daa fettalanteeg noonu yàlla ba not ak gaa yi daa defi kàngam ñëpp ñëpp nga wor ak gaa yi dee faa jógal ñuy faj ku ràgg ku ne ba woppi dee ja ñëwee moo tee ñu farlu ba wér ndegam borom mbir yu toll nii ñëpp ñëpp a ne mes waajal te jóg sàkku ab yóbbal te jëf li la war lii doy na koy wax wax lii doy na koy xam a xam ndem xej yàlla ñoo dee man mi seen du ma der loo xej xej du tee dee ñëw fa bis di la wër te loo ko jag te loo ko berndeel loo xej xej du dee dee def sa gën di la wër te loo ko berndeel lu dul sa du génn sa kër loo xeej xeej ji du tee dee def sa gan di la wër te loo ko berndeel lu dul saguru du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuy ji yàlla keroog mooy gën a métti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar bis buñ la dee jangte jangte yóbbu suuli ba ñëw ba jooya daal ñuy xëccoo alal ji ak la nga jur xarit ya fàtte la say doom dal di doon ni alal jigéen ñi tënj la sàkket yépp xëy na wesar yeneenti weer ci kanam ak lëf sa bokk yu ñëw garoo jabar ya te dootoo denc faw jabar sa doomi ndaw yu mag sa barab jigéen ñu ndaw ña di waaj tey seetu tey wuti far nga weete weet ne cundum yow rek loo jëfaloon dootoo ko am sa alal ji yóbbuloo ko fa far loo yóbbuloo boo demee lu jëf ji yiw du fa saf mu nag nakkarun wa nakiirun ñooy taxaw di la xar seen bool de yaa gën a rëy ngir doomi aadama yi ak jinne yi bu ñu booloo woon yëngal ko du wér boo tontuwul lañu lay wax bolde dal ci sa kaw bàmmeel ba naj la ba jiit yaak jaan ya far na jasar bàmmeel ba xat gamu xat ak tër ba jëm abada yaram wa ak lañ ci muuroon lépp def saxi wer lëndam ga ak sax ya ak wéetaay wu yàgg wa ak mbugale ak tiis yi jëm yowmal xiyaamati far nga sax ca loolee ba bis buñ dekkalee ba taxaw bay joxe téere ya mbaa ñuy peese jëf ya di ber kon mbokk yi nañuy bàyyi xel wax yii nga xam ne nii bu ñu demee ci alquran fekk ko fa bu ñu demee ci sunna si yonent bi fekk ko fa bu ñu demee ci njàngalem Sëriñ Tuubaa fekk ko fa waaye bu ñu demee ci mbindum mag ñi sëriñ Tuubaa yaroon it fekk mu fees dell ci seeni bind te ñoom ñi ñu ko doon fàttali ñoom ñëpp war nañ ñoo jox misaal ndax kenn nekkatu fi kon nañu bàyyi xel bu baax a baax yàlla nañu suñu borom sënk ci siraatal mustaqim ñoo ngi fàttali sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe bi yëpp liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ngir liggéeyalee ko sunu borom ngir fàggu dundub ëllëg